ngeen jëf Frank timis xaarul timis fajarug maam yàlla la xëy di wax soxlam moom l'homme des affaires bi ñuy ŋawta ŋawtee ci réew mi di Frank timis xëy na leeral lu barem ci réew mi mi ngi ci la Sénégal bi leen bi nee na 2010 la xamante ak Aliou Sall ña nga xamante ci Chine Pierre Goudiaby Atepa moo leen présenté séqul ak Aliou Sall dara lu dul li war ci diggante liggéeykat akum njaatigéem Aliou Sall du dara lu dul sama employé Karim Wade Frank yi ma waroon a fay ñetti ak lu teg mënumaa fexe ba gis Karim Wade mu may wënjëng wënjëng loo jox na ma rendez-vous Ndakaaru ma bàyyi sama yëpp ñëw Sénégal ba ma demee ba yegg biroom ci lañ ne ma Karim Wade dafa tukki mu joxaat ma rendez-vous Paris ma dem fa gisuma ko mu jox ma rendez-vous Arabie Saoudite ma dem fa gisuma ko ba ma demee ba maar ci ay mbiram nag ci laa ko waxee Pierre Goudiaby Atepa Atepa moom ma yóbbu ca président Abdoulaye Wade Franck Timis dañu Abdoulaye Wade ku baax la moo lijjanti lépp ba mu sotti ba noppi woo doom ja Karim Wade nekkoon na signé yëf yi Karim Wade woo ma di aalu ci sama kaw ca laa dale ci kawam wax ko xamal ko ko moom simple ministre te man ab l'homme des affaires li nga doon doomi président moo tax ñu dajale juróom-ñaari ministère dénk la waaye du sak ay coowal pétrole bi xëy na jolli ci la tribune a yi moo di maître Ousmane Ngom mi enquête dina kay nañu jibalee tëg xalaatam boobee wéet na ci ndax daanaka ci ñi séq géopolitique bi yëpp kan àndu ci ak moom Benoît Samb bu APR nañu ci mu njëkk enquête dina kay moo mayeetul lu ni mel maître Moussa Bokar Thiam bu parti socialiste ne waa enquête dina kay ñoo war bàyyi di yëkkati ay xalaat yu jëm ci yokk mandat ak wàññi mandat Maguette Sy bu parti démocratique Sénégal nañu kàddu yu ni mel xalaatuñu woon muy jugee ci jibalee tika meneen Maguette di Maguette seen bu PIT nañu ci la tribune jibalee tika ak waxam ak bu 80 moom la xam li ma xam ba xam ko moo la 14 octobre bés bu nar tàng ci réew mi populaire nañu muy waa wattu Sénégal di opposition bi ak nguur gi ku ci nekk yaa ngi findu sa morom Alaaji Malick Gakou bu Front Défense Sénégal nañu du ñu bàyyi kenn mu ñuy xañ baa mu ñu ñu yàqal sañ-sañ boo xam ne constitution bi moo ñu ko may Seydou Guèye nañu état bi du mas a bàyyi désordre di am ci réew mi réew mi njiitam di président xamle na ni junni ak ñaari téeméeri milliards la ñu ko nattal ngir ay projet boppam mille deux cent milliards ca xaalis boobee am na ca ñetti milliards ak genn wàll goo xam ne dañu koy tabaxee ab kaso ca sébi xotaan am na ci juróomi milliards yuy dem ca stade Assane Diouf ñoo ngi sóoraale ay pont ak yoon yoo xam ne liñ ci jublu moo di laaxarti dëkk yi làqu lépp ci biir loi des finances projet de réforme bi jëm ci wàllu magistrature Le Quotidien nee nañu ñoo doxin tuuti dem ci direct info journal bi xëy na teg loxoom fii metti ci jigéen ñu bari ubbil yéenekaay bi góor ñi nga xam ne li ñuy wër mooy jigéen ñi seen i jëkkër faatu bàyyi leen xaalis bu bari maanaam teraanga wala jigéen ñi amee teraanga ba noppi seen i jëkkër faatu bàyyi leen fi ca ñooñee la yéenekaay bi xëy xëy leen tuddee chasseur de veuve nanti am na ci benn femme bu ñu naan may nee na waa direct info ci jamono ji ngay ténjee ci la góor ñi daam fit wu toll ne ñëw di la doxam xam xel na yaa ngi muuru am na ci ku moom imaamu quartier ba moo ko ko langal moo ko ko def ne jëkkëram daa faatu mu muuru ko bés bi yàlla sàkk imam bi ñëw di ko xutba ak di ko xaddis ndekete boobee yéene imam bi mooy seet nu mu ko takkee am na ci ku ne moom bàyyi jiitleem ca kër ga la daan ñëw di jaaxaan ñu koy njoñal ay ginaar croissant yi di dàqe te dërëm du ko génne direct info nañu it am na benn booy boo xam ne waa ji doon génn ak yaayam moom la booy bi jàpp dóor ko ba yàlla fóoti sagaram ndax jéppi gu mu ko jéppi ki ci l'observateur ku ko gis di ko jéppi benn waay la bu dëkk ca daaru salaam ga ca mbuur journal bi la ray dafa am bés mu soxla jabar ji bëgg sëy ak moom jabar ji ne ko dama sonn waa gaañ ko ba noppi ne du ko yóbbu l'hôpital ndaw si hôpital fan la mujjee ñetti fan lañ ca teg mu dee la si ne nañu waa def loolee jabaram ci mbuur njaga béy la tudd ah, ak opposition bi ma du yomb de mukk ci àdduna la populaire ne opposition bi nguur gi day a ah, ma ne la ñu ngay sii su dee alaaji Malick Gakou watu Sénégal waaw nee na dañ dul bàyyi kenn nag laa la wax am sañ-sañ wala boog di ñu tànnal li nga xam ne kon moom la ñu cartum réew mi lé daal di kon may di constitution bi Seydou taxoo ci biir réew mi la jigéen ña bokk ca wattu Sénégal day ci libération yéeni kaay nee nañ président Macky Sall day ba mu faloo ba léegi ci ñeenti at yi la waaw ma am na ndam xam ngeen lan mooy ndamama ah? ah mooy Macky Sall daal delloo na démocratie ginnaaw bi la ba mar di tali ma ne nag ay musiba mbaaba ku ma di ay scandale wàllum koom-koom alalu réew mi la nekk ci biir suuf alalu réew mi la ak yëkkati kon ay daan di ko lal nag ci ay ndodd fonctionnaire xam ne day defuñu dara sans fondement ma ne la di talaata la fi ne kon dara lu dul bëgg seenug réew jigéenu man koo watu Sénégal yooyee waaw nee nañu pare nañu dee ngir talaatay ndeer la ma ne la jox nañ nag rendez-vous kon Macky Sall nguuram gi la le 14 octobre nee ma ajjuma ji di ñëw yéene kaa gi ne opposition ba day waaw déposé nañu nag démb seen déclaration ba ca préfet la waaw Malick Gakou ne opposition bi day danañu amal nag doxu ñaxtu ak lu mën a am nag laa la wax te ñu ngi woo nag doomu Sénégal yi nekk ca bitim réew gële ñoom it fa nu ne waaw nañu doxandoo ak ñin ñi le ngir suñu alalu réew mi ñu daal di koy taxaw waaye itam pétrole bi lée alaaji Malick Gakou yemu ca parce que journaliste bi day laaj ne ko nag maanaam seen plainte bi nga xam ne plainte nañ ko Alioune Sall ak Timis bi lée grand parti ne suñuy avocat nga ca te dootul yàggati rek danañ ca wax Walf Fadjri doxu ñaxtu 14 octobre boobee waaw opposition bi day dañoo fas yéene guerre maa la ko wax réew mi moom sa ah bi nag mbir moomee doxu fi de déedéet parce tere ay doxum ñaxtu daal léegi ci réew mi ah daanaka diine la de maa la ko wax automatique ñi nga xam ne ñoom ñoo war a kon joxe nag ndigal ah dañu koy tere rek daanaka duñ joxe benn explication laa la wax rawatina nag président Macky Sall moom ba mu faloo ak léegi ni la waaw doxu ñaxtu moom ci la jeex ci biir réew mi laa la wax maa la ko wax Abdoul Mbacké Bara Dolli bu bokk gis-gis waaw nee na gis nga doxu ñaxtu bii bis buñ ko teree waaw lépp ca am daal jàpp leen ne Macky Sall nguuram gi la mardi tali bi ne waaw man nag élection député laay wax gis ngeen Ndakaaru Ndiaye jël Diop te de liste Ahmed Fall Braya kon ak Bamba présidentielle yi a ñun opposition bi yëpp dañoo war a jël Karim Wade kon def ko suñu candidat <laughs> waaye bokk gis-gis kay wax de surtout Serigne Touba ba yemu ca ndaxte nee na dëkk bi ci boppam fi nekk nii dara doxul Touba maal bi Macky Sall ñëwee ak léegi nii laa lay wax nii rien ne dans ce dara doxul ci biir réew mi laa la wax parce que Macky ci boppam politique am wàllum koom-koom la amul daal uuteeg Abdoulaye Wade mi nga xam ne nag fu ne sos lañ fi yoo xam ne kon teguñu ko fenn ak nekk fi di jéem a tiital ate ak lu ni mel bu dee am nañu kon ay preuve ci wàllum pétrole bi gaz yaa xëy tamit laa nañu ko génnee président Macky Sall daal gis nga bi mu dikkee ak léegi ni lée yokkute wàllum croissance masàllaa laa la wax uh-huh. Seydou Guèye waaw mais xoolal leen ma Sénégal budget bi bii première fois muy romb ñetti junni ci ay milliards trois mille vingt deux milliards trois cent quatre vingt ko nee naa attakat bi juge bii di Samba Sall waaw moo tere ne Abdoul Mbaye kon du génn réew tey coowal politique ba coowal pétrole ba nag le témoin yéene kaay ak Timis day wax na maa la ko wax tubaab bi day Franck Timis ne danañu investir dugal Sénégal quinze mille milliards juróomi at jàpp juróom-ñaari at yii di ñëw tubaab ba yemu ca parce que Franck Timis nee na giñ naa ko de ci sama téere bible bi waaw ne président Macky Sall kon mosuma dajeg moom la wax Alioune Sall nag li may wax ci moom lenn dong la nekkul actionnaire Petro-Tim acteur la rek sama la fa du ma dara Frank Timis ne waaye gis nga nag altine ji ñëw waaw képp koo xam ne kon yàqte nga sama der bii danaa dem ak ci kanamu tribunal yi laa la wax bi ne waaw Adama Gaye journaliste ci tribune yéen kaay ne Alioune Sall Frank Timis ay fu ñu tegee seen dànk ca diwaanu États-Unis gee ñeme wuñ ko sax nañ fa dem bu ñu weddee nañ laaj doomu premier ministre bu Gabon États-Unis moom booy yëngu ci wàllum nju ñaaj gerek yooyee di yónnee ay ay mel journaliste bi ne président Macky Sall nag pétrole ak gaz bi nga xam ne kon moom la dénk rakam ji gravissime doy na waar garaaw na lool te président ak rak ji day war nañoo indi nag ay gindi jëbalaytika indi na ay gindi dee bëgg-bëgg mooy ñu boole ñetti élection yëpp termine yéene kaay ne gis nga jëbalaytika Ousmane Ngom waaw ma ne la ay agent lañ dañ leen a recruter ngir ñuy tourner bopp nit ñi di divertir te am nañ xel mu ñaaw ca ñoom ne gis nga ñi dañ leen a jëlle pour nit ñi fàtte kon coow li ci wàllum pétrole bi lee enquête yéene kaay ne boole nag élection yooyee waaw jëbalaytika day kenn àndul ak moom seul contre tous parce que Benoît Sambou bu APR waaw nee na suñu démocratie bi fi mu toll ni lée da koo mayeewul sax nag suñu démocratie bi fi mu toll moo ko mayeewul maître Bocar Thiam bu PS ne gis nga ñii dañoo war di bàyyi di def ay proposition di yokk wala di wàññi kon ay mandat wax Maguette Sy bu PDS waaw nee na lii daa ruslu sax ci kilifa URD gii di Djibo Ka réew mi quotidien ne Macky Sall delloo nañu démb de ah maa la ko wax Macky jamonoy maam la ñu delloo Macky sal PS URD AFP yow président Macky Sall ba mu nekkee école primaire Moustapha Niass mi moo nekkoon directeur de cabinet Léopold Sédar Senghor la ilaha illallah tey moom élève nekk président de la république waaw Niass a ngi nii de jibalay ti kaa fàtte xëju fi bees daanu Ousmane Tanor Dieng ma ne fàtte xëju fi Adama Gaye ci tribune yéene kaay ne moo ni Léopold Sédar Senghor day waaw xam ngeen lan la doon waxa waaw nit daal day xam dem te bañ a dellu siwaat jóge ca benn Sall yëpp nekk ñu woon ak moom démb laa la wax te ñoom ñoo tax nag muy def heure ji muy def <laughs> xale président nee na ba muy def école primaire Moustapha Niasse nekkoon directeur de cabinet Léopold Sédar Senghor xaayaar nag ku dégg séeréer moo tax ma naan la jël